aousubillahi chami alim min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi bi ni'matihi tatimu salihati wasalatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba sante borom subhanahu wa taala dujul ci sang-sangi muy sidina muhammad alayhi salatu wasalaam saa su ñu ko defee seen émission taaru diine ji tey ñu sees waa daayra ansaar yi fas yéene waxtaan na ci uh, wàllu gàmm gi waaye tamit ci wàllu daayra bi allah rabbi waaye ginnaaw loolu dañuy a tamit di ñaan ñi nga xamante ñu nekk ci lal hôpitaux yàlla fëgg seen bopp bañ dellu ci kanam njaboot gi ñi nga xamante ñu càab féete na leen ginnaaw yàlla def ñu génn ci barke yonent tamit daw lay ñu ne nee naa ne dañuy euh, tourner rek tey nag fii lañ ñëw ci si waa daayra ansaar yu fas yéene waxtaan ak imam Maodo Niang ci wàllu gàmm geek nga nuyu mbokk téléspectateur rek euh, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الكرام وتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن الشيخ ديجاني رضي الله عنه ورضي الله عن جدنا وسيدنا إلى ربنا مولانا الشيخ سيد الحاج مالسي رضي الله عن قلب الشيخ سيد أبو بكر سي وعن سائر خلفائه ومقدم أهل طريقته سوحنا سنجم ليدلون يو دنيو نيو سيدان يب waaye tamit du euh, le ziyaare tamit imam euh, di la ñaanal jàmm euh, dama njëkk a ci daayira bi kañ ngeen formé daayira ansaar yooyu. daayira ansaar ah daayira bi yàgg na de. Mm. xam naa ni daal diggante 2003. Mm-hmm. yaakaar naa daal ci côté yooyu ndax 2001 laa ñibbi si 2002 2003 daal jàpp naa ni ci lañu ñu sos daayira bi. Mm-hmm. su jumul mm-hmm. waaw.

waaye fekk lu jëkk loolu tamit am na yenn programme yu ñu daan doxal ba yàlla dogal bi juddu ci ñu commencé woon ko ci lu ndaw mm-hmm. muy màgg ba yàlla dogal mu agsi fii mu agsi tey ñu mm-hmm. nekk ci juróom ñetteel bi mm-hmm. ren yàlla nañ ci yàlla mottalil ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ren daal mooy juróom ñetteel bi yoon ñu fas ko yéene amal fii ci caaro yi depuis ba ngeen ba ngeen bi après da ngeen a dem euh, sëriñ bi mu jox leen ndigal wala da a jékki-jékki toog seen waa daayira ne war ngeen organiser gàmm. waaw ñun euh, xalaat bi mu ngi jóge ci jëmm ji toog muy xaaji Birane. Mm-hmm. ñu nuyu ko bu baax. Mm-hmm. Euh, mu xalaat ko waxtaan ko ak Abdou Aziz mm-hmm. ndax boobu dañu gis ni dëkk bi tamit amul benn programme bu mag bu fi am. ñun ne waaw ndax mënuñoo dekkalaat gàmmu caaro ñu ne ah. loolu de mën na nekk waaye xam ni itam daal. Mhm. xëy na sax bañ ma ko waxee nanguwu ma ndax xëy na Quand ma woon foofu. Mhm. biñ ci waxtaanee daal ñu la ah kon nag nañ it ñu commencé euh, jox yàlla suñu mhm. commencé di def cotisation mu ay ba a ci école booba cotisation yi deux mille la woon mhm. safula téeméer la woon mhm. ñu def ko yàlla def ñu ngi ko defoon nag ci guddi al isra wal mi'raj ndax dañ woon guddi googu guddi gu rëy la ci lislaam mais gisuñu daal kenn ku ci organiser benn événement mhm. ñu ne nañuy def gàmm gi ci guddi rañaan gi biñ ko defee yàlla dog dogal mu mu jàll ah ca déwén sa nag ku nekk na ah lii war nañ kaa gën a yaatal ku nekk di wax ku nekk di wax ñu génne ko foofu defe ko ca bayaalu bu mag ba ca taliba yàlla dogal mu xaw a am tuuti yokkute ah ñëpp nag mel ni yàlla moo ubbi yëf yi ñëpp ñëw bokk si ñu ne ah, kon nañ ko tuddee gàmmu caaroy ci ñaareelu gàmmu ga wala ñetteel ba ñu bëgg ko defaat mu tombenteeg kazu rajab suñu mbokki murid yi war a dem Touba ñu delluwaat ci sëriñ bi wax ko ko mu jàppalaat ñu beneen bis ndax comme dañuy gàmmu Caaroy murid yeeg tiijaan yeeg laayeen yeeg xaadir ñëpp a ci bokk mm-hmm. te ñuy def fii ñële di def fii tamit day xaw a doy waar ñu ràndal dat bi looloo tax duñ ko def léegi ci guddik rañaan gi waaye mm-hmm. gàmm gi ca cosaan guddik rañaan gi lañ daan dàkk di ko ci def mm-hmm. ndax waxtaane rañaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bi ñu demee ba yëf yi gën a yaatu nag ñu génne ko nag di ko wutal yeneen bés yoo xamante ni mhm. dañ koy génne ci bés boobu mhm. waaye bu ci nekk tamit balañ koo def daañu dem ci waawoon mhm. toog ak sëriñ Abdul Aziz Al Amin waxtaan ci ak moom di mu déglu ñu ñu wax ko li ñu bëgg ak fi ñu toll mu jox ñu ay xalaat ñaanal ñu jox ñu ndigal ñu continuer suñu paree yi tamit delluwaat ca moom wax ko fi gàmm gi tollook li ci am yëpp moom tam mu kontaan ñaanalaat ñu ba déwén. Mm-hmm. su ko looloo daan tax ñuy defaale itam ziar bi ziar bi ndokkeel la daan doon ci moom. far yàlla dogal ñu ne benn xeer bu jëm ñaari picc lay doon. Mm-hmm. mu doon bisu ndokkeel ci moom. Mm-hmm. nekkaale bisu ziaru caare ndax caare dañu yàgg ak kër Cheikh Seydil Hadj Malick. ci Seydil Hadj ba léegi mag ñi dañ daan ziar jamono yi sëñ Babacar si. mag ñi dañ daan ziar jamono yi Cheikh Hadj dañ daan ziar yi. ñu demoon ba gis ni ziar boobu tamit xawoon na taxaw. Hmm? Mhm. ñu ne nañ ci profité waale bu nu gàmmoo ba noppi rek jigéen ñu sol lañu soloon ñu dem def ko ndokkeel defaale ko ziyaar benn yoon mu nekk benn xeer xajaratun eh, eh, jamra xaw ma nuñ koy waxee mhm. bi dar ba tey ni mhm. benn xeer nga am ci ñaari picc ñu am ci suñu ziyaar ndokkee laali sëriñ bi ci jox bi mu ñu jox ndigal ci gàmm gi loolu waral gàmm gi ñu di ko doxal ba léegi suñu gàmmoo rek ay fan yu néew lañ ci teg ñu dem Tiwaawan ziyaara ji mhm. gàmmu gi daaw ñëw naa ci gis naa ni mu toll gis naa mhm. ni gisuma événement ba ko gën a rëy lu dul gàmmu Tiwaawan mhm. yan jéego ngeen dox ba tax gàmmu gi toll noonu ndigal ak ñaan rek mm. waaw ndigal ndax Serigne Cheikh Tidiane si mm-hmm. radiyallahu day wax ni mm-hmm. eh, nit lépp lu mu def teg ko ci kaw ndigal mm-hmm. teg ko ci pas-pas nee fu mu àggu rek ci moom la ndax nee borom pas-pas mën na lu borom àll mënul borom ndigal man na lu borom am am manul ki am am am te amul ndigal ki am ndigal te amul man-man suñu doxalee rek duñu bokk mhm. te ñun li ñuy def dañ ko teg ci ndigal lu wóor ndax damay wax ni mhm. sëriñ Abdou moom ku mu jox ndigal am nga ndigal lu wér ndax sëñ Babacar si jox na la ndigal mhm. ndax sëñ Abdou lu mu lu mu ànd rek mas naa ko dégg mu ne man lu ma ànd sëñ Babacar a nga ca waaye lu ma génn rek sëñ Babacar génn na ci mhm. kon gàmm gi mën nañu wax ni sëñ Babacar si ànd na ci mhm. ndax sëñ Abdou ànd na ci te waxoon nañu ko yi tamit mhm. ni ñu lu ngeen bëgg su ngeen ko amul rek da ngeen a dogul waaye lu ngeen dog rek incha allah di ngeen ko am ndax daayire bi daayire sëñ Babacar si la wax nañu ko ay yoon yoon wax nañu ko Tiwaawan wax nañu ko Kër Massar wax nañu ko fii ci benn conférence bu mu fi ñëwoon bu waa Koskas euh, organisé woon mu ñëw fi ba mu ñëwee dañu ana sama doom yi waa Lansar. Mhm. man ci daayira bi laa bokk. Mhm. ndigal loolu moo ñu may bu ñuy demaare nii ba fii ñuy wax ak yow du benn dërëm bu nu yor. Mhm. waaye nag léeg-léeg ñu tiit waaye dañuy jékki-jékki rek barke mag ñi ndax sëriñ Cheikh day wax ni mag ñi boo leen di liggéeyal. seen barke moo lay gunge. balaa ñaaw rek ñu agsi te sëñ Babacar Sy da daan wax ni balaa maa sama taalibe di xam mu dem ba jaaxle. bu dogoo ci man rek bu ma wooyee ma wuyu ko moo tax ñun toujours dañuy dalal suñu xel yoruñu lu ne gàññ waaye bu ñu organiser rek ñu xam ni barke mag ñi mi ngi ci biir loolu moo waral gàmmu gi demee nii mu demee fa tabaarakallaa ndigal ndigal daal ak ñaan moo tax gàmmu gi mel nii mu mel. daara bi nekku gàmmu gi nekku seen daara bi kese ko organiser wala dafa nekk gàmmu Caaroy international. gàmmu Caaroy la waaye daayira ñoo ko organisé daayiratul ansaar ñoo yor gàmmu gi mm. loolu la yàlla dogal <laughs> loolu leer na ayco mi ngi noonu mu nekk euh, guddi gàmm bi nga xamante ni moom la ñuy waajal mu am le 13 avril incha allah rabbi fii ci cinéma Caaroy Caaroy géej Caaroy géej ah fii ci Caaroy géej bokk <laughs> di ci woo mbokk jullit yëpp képp koo xamante ne yaa ngi naan achadoon la ilaha wa achadoon na muhammad rasulullah ñu lay wo ci guddi googu nga xam ne mooy guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. euh, ñëw ci daayira kan moo leen jox turu turu daayira ak lan moo tax ansaar yu. daayira ansaar. Mhm. man maa joxe tur bi. yaa ko joxe. waaw lu mu signifie. al ansaar ndax biñ koy formé euh, fële la woon ci suñu kër. Mhm. ñu ne nañu formé daayira. Mhm. ñu ne daayira bi nuñ koy tuddee sama xel ñëw ci ansaar. li tax ansaar. mooy la Cheikh El Hadj Mali waxoon. kun naasiran rabbana al ansaara nasraka lil muhaajirina wa min baadu yow yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali waa lansaar yi dimbali yonent bi waaye na nga dimbali waa tamit ñii ñëw ci ginnaaw yonent bi jéem a taxawu diine na nga woon waa lansaaru démb na ko dimbali ansaar tey ma xool fii gis ma benn daayira bu tudd ansaar te Seydi Hadj Malick dugal na ñaan gi mhm. ma jël turu ansaar nag tudde ko suñu bopp ngir ñu dugg ci biir ñaan googu mhm. lu tax waa lansaar ñoo dimbali woon yonent bi taxawu diine waa lansaar bii nag ñooy taxawu diine fii ci caaro mhm. loolu la yàlla dogal looloo tax ñu tudd suñu bopp daa daairatul ansaar mhm. maanaam ñi nga xam ni ñoo seen yitte yëpp mooy taxawal diine ci mhm. seen dëkk muy caaroy géej looloo tax ñu tuddee tur wi daairatul ansaar mais benn kenn joxuñu ko ñun ñoo ko xalaatal suñu bopp ba ñu demee it sëriñ Abdou wéyal ko waaw waaw euh, dinañ dem ziar incha allah après gàmmu gi après gàmmu gi mm-hmm. jàppagoo leen dat déedéet dañuy dem ci amal ngeen xadaratu juma euh, le 29 mars incha allah mm-hmm. am na waral xadara bi xadara bi tamit dafa bokk ci programme bi ndax bu ñu defee ajjuma bu nekk ñu dem mm-hmm. benn koñ def fa xadara suñu noppee bu bu bu réunion yëpp matee dañ naan secteur yëpp nañu daje ci bayaalu jumaa ja ñëpp bokk fa daje ndax aljamaatu rahma wal furxatu azab te innal wazifata lil qurraai aasimatun kazaka iqlimuha fi kulli buldaani mhm. eh, jataayu jullit yërmande yàlla daf fay wàcc mhm. te comme jàng yi ñu ngi koy defee fii ci eh, tali bu ndaw mhm. ñu ne nañ séddaale waa biir dëkk ba defal leen xadara bu ñu defee ba su réunion yi mat ajjuma jiy mujj secteur yëpp daje caaru gépp tijaan murit laayeen xaar te xadara ba boo demee di nga fa fekk tijaan da nga fa fekk laayeen di nga fa fekk murit ndax defuñ ko ngir daal dañ ko def ngir sàkku yiwu yàlla mu wàcc ci dëkk bi mhm. mhm. loo tax bu ñu dajee def mhm. xadara ba noppi ñaanalante baalonte ak waxtaane nag suñu wàccaayu gàmm su ko defee kenn ku nekk boo demee nga yóbbaale lan fay jàllale kenn ku ne nag dem préparé boppam bu ñu paree dal di def suñuy ñaan ndax xadaratu juma gis xam nga li ci nekk da wax nañ ni jataay la boo xamante ni ci jataay yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di teew ci la bokk ndax yonent zahiran la fi jóge waaye baatinan mi ngi fi mhm. leeram mi ngi fi ba léegi mhm. te bépp jataay boo xamante ni ay jullit dañu daje mhm. di tudd yàlla moo xam laa ilaha illallah la ñuy wax moo xam salatu ala nabi la ñuy waaye jataayu jullit daal ñu ngi fay tudd yàlla ak yonente bi leeru yonente bi daan fa teg ndax dani ñetti nit rek bu nu dajee ngir sama jëmm man Muhammad danaa fa teew te comme xadara bi tamit am nañ ciy ndigal dañ koy def ngir lépp pour mën a waxtaan ak nit ñi mhm. mën a jàllale waale message yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loo gis ci àdduna dañ koy wax mhm. ñu gis ni daal xadara bi def nañ ko mag ñi rafetlu ko mhm. ndaw ñi rafetlu ko mu am solo ñu ne nañ ko def rek boole waale ko ci suñ biir programme bala maa duggaat ci le treize euh, imam damay dégg suñu benn kilifa naan sëñ Babacar tey bu ñëwaatoon daayira yu bari dina ko tas de daayira bii de du ci bokk ah, <laughs> daayira Ansaar bu sëñ Babacar Si ñëwoon du bokk ci yi muy tas mm. ndax daayira dafa am lu koy téye mm-hmm. daayira dafay nekk daara xam nga daayira lii tax ñu ne bu mm-hmm. sëñ Babacar Si ñëwoon tas daayira yu bari mooy daayira yoo xam ne pécc xoola di way di fecc ka di lu leen neex def mm-hmm. bu ñu daayira tasee kottante bi ci mbedd yi message yi toog daayira kii message ndaw si ñuy message ante amul fii <laughs> boo gisee dayre bi ustaas yu bari yamuñu ko mhm. parce que ustaas yu ci bari bu ñu demee ci daayira dañuy jaay taar mhm. di kobas xale yu jigéen yeeg di duñ te fii ñun fexe nañ ba kuy ñàkk fedda doo dugg ci daayira bi mhm. mbooloo mi nag xëj na bariwul waaye bu ñu ñëwee danañ joxe leçon léeg-léeg Omar Sarr joxe leçon léeg-léeg Baye Mayoro joxe leçon bu fa kenn nekkul it ñu jàng seen tey si daal di ñaan tasaaroo bu dem Tiwaawan jotee ñu dem Tiwaawan bu kër sëñ Habib wootee ñu dem lu xew ci wàllu diine yi ñu def ca la man mhm. bu ñu paree kenn ku nekk ndem continuer ci sa liggéey mhm. waaw kon daayira yi sëñ Babacar di tas daal mooy daayira boo xam ne pécc xoola mhm. mais daayira bi ñu ngi jàngale laxdari ñu ngi def li ñu war def yëpp te lépp lu ñuy def nag xam nañu ko xam nga daayira balaa daayira bi ñuy bi ñuy wax mooy dayre bi nga xam ni ña ca nekk xamuñu jànguñu dañuy def nii rek dajaloo way cotiser léeg-léeg nga dem ci daayira da ngay foog nit ñi dañuy sabaru mhm. nu neex waay mu tooge nu neex waay defe duñ leen waxtaanee ci seen diine duñ leen waxtaanee ci seen tarixa dañ leen bàyyi noonu rek lu neex mhm. waay mu def fii nag mhm. yàlla dogal na loolu amu fi waaw ku nekk dangay ngay mën a tënku ci dëgg tënku ci charte wa illaa nga jaar feneen rek. ñun hmm. ñu continuer bu def son ba des ñetti nit it. Hmm. du tee daayira bi moom day sax incha allah. incha allah imaam li ma desee ci waxtu bariwul ma bàyyi la nga dugg ci wàllu gàmm gi bu baax a baax. waa gàmmu gi moom ñu ciy wax moom bariwul. Mhm. muy le treize avril incha allah yàlla nañ ci yàlla yóbbu. Mhm. ci lañ ko jàpp. incha ndigal li nag. Hmm. benn yoon rek lañ koy am. ndax ndigal. Mhm. ak alxayri ñoo yam. gis nga alxayri benn yoon rek nga koy dégg. jarul at mu nekk nga naan ci weer wi lañ ma maye woon naa demaat ci jàkka ji ilimaan mayewaan ma déedéet bu ilimaan ja deewee it alxayri ja day wëy mm-hmm. ndigal bu wéree nga jëli ko fa nga ko war a jële mm-hmm. sàmmal ndigal la rek te tënku ca te sëriñ Abdou dafa am lum ñu digaloon mm-hmm. fexe leen ba bu leen tooñ na ngeen tegu ci dëgg na ngeen sellal li ngeen di def jox naa leen ndigal ñaanal naa leen teg naa leen ci loxo yu wóor muy bàyyi Idrissa Seck dee leen diisoo ak moom topp leen ci ginnaawam lu leen jaaxal dem leen ci moom bu ko jaaxalee mu ñëw ci man mm-hmm. ñu topp ci ndigal loolu ba léegi ñu ngi ànd ak Baye Idrissa di doxal mm-hmm. lu ñuy defit dinañ ko laaj lu ñu waxit ñu def loolu inshallah fa tabaarakallah ci loolu it fa lañ fas yéenee mm-hmm. nekk ba fu ko yàlla yamale ndigal loolu nag ci la ñu nekk ba léegi teewul nag bu jotee dinañ dem Tiwaawan gis sañ Moustapha mi nga xam ne moo fa nekk di doomam di suñu kilifa di suñu sëriñ buñ fa jógee dem kër xalifa bi mhm. suñ ko gisee baax na suñ ko gisulit buñ gisee doomam mhm. bàyyi fa suñu kàddu suñ fa demee jógee yi tamit fépp fuñ daan dem daañu fa jaaraat mhm. waaye du tee daal ndigal li nga xam ni ba daaw ndigal li jotaat nañ ko ci xalifa bi muy sëriñ Babacar Sy Mansour ndax doomam moom woon ni ma sëriñ bi nee na la sëriñ bi joxe woon ngeen continuer ko sëriñ Pape Malick mu yor seen kàddu yi tamit yóbbante ko Baye Idrissa ndax xam nga maa ngi toog fii di wax te li may wax bu fekkee du dëgg amaana ñoom daañ ko seetaan wala seen njaboot di ko seetaan mm-hmm. ndax yéen lu waaye di wax ak yéen na leer ndax mu paree dafa ngeen koy tege mooy tax te dama waxoon daaw ni mm-hmm. man duma dem télé di wax naan xalifa bi nee na te gisuma ko dégguma ko moom dara jaraluma ko bu ma rëyal dara ba naan xalifa bi nee na te gisuma ko bu ma jotu woon kàddu gu jóge ci moom mm-hmm. ci doomam kon duma ko wax kon ñun ndigal ci la ñuy wéy ba léegi booy wéyi ndigal nag la cay des mooy ñi yàlla booleel muy ñi nga xam ne ñoo ko yor mhm. ma ànd kook ñoom mhm. muy imam Modou Diop sëñ Babacar mhm. imam Modou Sall sëñ Birane ak sëñ Habib Baye Ndaa Taalim yi borom yëmbal ak ñoom seexu Mbaye ñi nga xam ni ak waa daairatul ansar ñoom ñoo yor yëfi boole ko jigéen ñi ñu di ko doxal nañ ko daan doxale fa tabaarakallah muy rafet ba léegi yàlla nanu yàlla may ñu mottali ko amiin ci ñaanalit cheikh ba mi nga xam ni ginnaaw yàlla mooy reenu gàmm gi yàlla na ko yàlla gën a may wér te yàlla dolli ko defal suutar ak ñi nga xam ne ñu ngi jàppale ñëpp mhm. muy ñu nekk biir caaroy ak ñi nekk biti caaroy yëpp mhm. ñuy ñëpp ñu ngi jàpp ci gàmm gi rawatina nag jigéenu caaroy ak xale yu nga xam ni ñoo moom gàmm gi mhm. ndax gàmm gi damay wax ni jigéen ñee ko moom ak xale yi ndax bu fi mag ñi jógee xale yi ñoom ñooy yor yëf yi waaw su ko defee ñoom la liggéeyal ci ndigalu mag ñi bàyyi bàlla mi nga xam ne mooy chef njaga mi nga xam ne mooy boroom mooy meeru dëkk bi mhm. ak imam ratib bii toog sans wet di imam Mamadou Mbaye mhm. ak mboolem imam yi nga xam ni ñoom tey ñoom ñoom moom yëf yi ndax itam am na loo xam ne mag mënatu ko ndaw moo ko man mhm. sëñ Baaba kese da daan wax ne ndawi kese dalul xel magi kese dalul xel na mag ñi xalaatal xale yi te sëñ Abdou dafa ñu waxoon ni bu ngeen demee na ngeen diisoo ak mag ñi na ngeen jël kàddu gi jox leen te leen leen jiitu yaakaar naa bam ñu koy wax ñun ñi ñëpp ñoo ànd. Mm-hmm. ci loolu it tamit ci la ñuy tënk bu ñëwee daañu wax ak mag ñi suñ mm-hmm. pare nag ñun ñu continuer ci suñu liggéey. su ko defee imaam Modou mbay moo fi toog toogal fi mag ñëpp. Mm-hmm. toogal fi ilimaan yëpp. fa tabaarakallah yàlla na yàlla gën ko may wér di jaayi nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di gërëm sunu yaayee bu baax a baax a baax di leen gërëm yéen itam mm-hmm. lu ma ci juum nag ñu xam ni ci man la lu ci jum ñu xam ni ci suñu borom la di gërëm waa daaira bi bu baax mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo ko yor muy Abdoul Aziz ak Omar Pape Samb ñi nga xam ni ñoom ñoo yor wàllu organisation bi mm-hmm. ñoom it yàlla na yàlla jàppale leen may leen kàttan ak wér ak ñoom demb ak ñoom ñëpp su ko defee daal soxna si maa te wax ji amul solo Euh, Serigne Moulay tamit gàmm moom muy le treize moom tam. incha allah ca gàmm bi kon yëf yi dafa daje. Mhm. Mhm. Hmm? ah noonu. waaw loolu yi tamit. Mhm. ak Serigne Moulay mi nga xam ni tamit. Serigne Abdou moo ñu waxoon ni mooy seen Serigne nekk ak yéen. moom itamit dinañ fa dem incha allah. ndax dañ daan def bu ñuy dem ci waan ci Serigne bi jaar ci moom. waxtaan ak moom. ndax moom itamit yëf yi moom moo ko moom mhm. moom tam ñu ngi koy nuyu di ko gërëm mhm. ak euh, magam sëriñ Mansour ak njabootu seen xaaj Habib ñi nga xam ne mhm. ñoom lañu dëkkal ak njabootu Cheikh Seydi Xaaj Malick ak këru diine yëpp ndax jaare yi ñun ñëpp benn lañu waa kër maam Limaamu dañuy participer ci gàmm gi waa kër maam borom Touba noonu waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu ñëpp dañoo bokk ci gàmm gi ndax gàmm gi yonent moom ñëpp lañ jaboote su ko defee ñëpp lañu ñu tàllal loxo képp ku ñu ngi yaatal ci biir ndax la ma daan wax rek gàmmu gi moom ki ci dul am kàddu mooy kiy yàq mhm. booy yàq moom doo ci am kàddu mhm. xalaat bu ñaaw it duñ ko jël ku ñuy indi ay noon duñ ko jël mhm. waaw nangam ñun daal lu ñuy defaral ak lu ñuy jëme kanam kon gàmmu gi ñëpp ñu ngi ci biir ñëpp ci bokk ñëpp ci bokk yem waaye nag yàlla dogal na waa daa'iratul ansaar ñoom la ko yàlla teg ci seen loxo ndax ñoo ko tàmbali ba mu agsi fii mhm. tey ñoom ñëpp nag ñu bokk ko ndax buñ ne ansaar rek caaru gi yëpp ñu ngi ci biir su ko defee ñu ngi di yemale foofu suñu kàddu mhm. di gërëm ñëpp di gërëm suñu yaay yi bu baax a baax a baax di leen doole ñaanal mhm. yal na yàlla dolli leen a may wér amiin amiin bi jaahi nabi sallallahu alayhi su ko defee bala ngeen a tëj dañuy jox imam du Mbaye mooy imam raati mu daal di tëj ngeen daal di aouzu billahi min ashaytan rajim بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتل ما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هذه أقعد من السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي نوي لين دي گرم لين سانت سي تي واي بي يان يالا فاي امين امين نوغي جيتال سانت يالا مينو مايون نو فك داو فك وادرن نون كاي سانت ñi nga xam ne fekk woon nañ ko fekk wuñu ren mhm. yal na yàlla yërëm leen te jëggal leen di sant waa daayira bi si tuuru caare gi yëpp nag teewal nañu fii caare gi yëpp mhm. te ku tudde caaro yi tudde alaji bala jaay ñang mhm. mooy sëriñ caaro yi na nañu fi ayima yëpp nag penku ba saw imam Ndiri Diop Cap Vert ba imaam Abi Fall sa penku ba ayima yëpp ñu ngi leen fay teewal Sibir biir new ñu bersi Seyna Sall porte parole imam Baba imam Assane ñoo dañoo jegeñe si juma ji sànq ñoo ànd bi ñu jullé juma ba noppi it dëggee na juma ji ñu kër ga si sasé dañu jubal pikin gën feulé sa gëdja si ci juma noonu ubbi te président ñëw fa la ànd dem fofa tok fa booru takku sa ñu soko ñibisi bima la tay ñëw fi ak Seyna Sall imam Baba ak Isaan ñom ñepp wax na ne ma teewal leen fi bon teewal leen fi dëkk bi yëpp ak ayma yëpp yal na yàlla sàmm leen sëñ Maodo. amiin amiin eh, jàng yi ni nga ko waxee léegi min koy sos dem nañ sa dëkk ba ayma yëpp yëpp bu ñëpp ñëwul it ñu si bëri si ayma ñëw noonu. bi mm-hmm. ñëw it waarakallaa waxtaan woo nekk benn te keroog wax nga wax ju dëggu. Mm-hmm. ne bu kenn wax jàngi Maodo. Mm-hmm. nan wax jàngi caaro yi. baamuwaat naka léegi it ginnaaw jàngi caaro yi nag allah kulli xaalin ku déggali rek na man ka rek. Mm-hmm. amul la ngànta boo ñëwee di wàññi dara mooy gën mm-hmm, mm-hmm. yal na yàlla sàmm leen yéen utu leen keroog ba tey nag ay at a ngi nii waaye at mu ne mi gën a doon la ku rek loolu ndimbalal yàlla la yal na yàlla sàmm leen yal na utu leen ngi lay ñaanal yàlla lii nga def nii ak lii ngay wax nii di ko xal defal di ko xelal gone yi loolu ñun imay eh, imaam la waroon te yaa ñu koy defal yal na yàlla fay la amiin doon wax it imaam Mor Diop ak euh, Babacar Sall. Mm-hmm. yal na yàlla fooy ñu leen. Mm-hmm. ñu ngi sant ñëpp di gërëm mm-hmm. ñëpp. ngeen baal nu wax yan yàlla doolu sutura. amiin amiin incha allah ko teewa ren yan ko teew na nga ni déwén. bëgg nañu lool nag. si daayira bi yan yàlla bëgg si yéen. amiin amiin bi jaara suuji laa. jërëjëf. Aïcha mi ngi noonu euh, tey lii la leen indiloon si émission taaru diine ji ñëw seet si euh, waa Daayira Ansar fii ci euh, postu Thiaroye ñuy waajal bis bu rëy Thiaroye géej <laughs> di waajal bis bu rëy la 13 incha allah rabi mu nekk gàmmu goo xamante ni gàmmu annuel la muy am fii ci Thiaroye ci Thiaroye géej ñu ciy woo mbokk jullit yëpp képp koo xamante ni jullit nga ñu la ci woo waaye tamit zi xadaratu juma bi nga xamante ni ñu ngi koy amal le mars incha allah rabi le 29 mars incha allah rabi ñu ngi leen lépp lu ñu am yàlla nañ am yàlla waaye lépp lu ñu ñàkkit yàlla bu ñu ñàkk yàlla yàlla na jàmm sax ci sax ci Sénégal jàmm gën jama yàlla na jàmm am ndax ma ab des da baax ma la naan booy res ëmb ci gaal bu ne yàlla na gi mucc da naan yàlla na gaal gi mucc bu gaal gi muccee ëmb mucc ñu nekk ci gaal gi mucc kon Sénégal ba amee jàmm ñëpp bokk jàmm élection yi waaj a ñëw yàlla si yàlla def eh, ndox mu sedd ci barke yonent ma lay saatu wasalaam waaxidu daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh El Vision